salaamaaleykum. maaleykum salaam Moussa Samdaf directeur hôpital uh, Dalal voilà monsieur Daf euh, ñu ngi lay nuyu euh, ñu tey dañoo ñëw fi juste pour euh, xool hôpital Dalal Jàmm ndax ginnaaw problème bi nga xam ne Dantec am na ko ci wàllu aménagement yi yéen bokk ngeen ci structure yu ñu cité ngir waral dala yenn ci service yi ak yeneen ci maladie est-ce que mun nga ñëw ñëwal ci lu ni mel. jërëjëf ñu ngi leen di dalal si jàmm également ci hôpital bi di wax ne comme ni nga ko waxee rek. hôpital Dalal Jàmm dafa bokk ci hôpitaux yi war a daloo service yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo hôpital Aristide Le Dantec ci yooyu service bokk na ci service dermatologie bokk na ci service oncologie pédiatrique bokk na ci benn pàcc ci ophtalmologie benn pàcc ci uro ci chirurgie général benn pàcc également ci orthopédie ak benn pàcc ci ana anapat euh, beneen pàcc ci parasitologie ak beneen pàcc ci immuno-embryologie ci yooyu yëpp nag tey jii nii mun nañu wax ne oncologie pédiatrique moom daanaka tàmbali nañu liggéey bi fii ci biir hôpital bi malade yi transféré nañ leen par SAMU ambulance su SAMU yi ñoo leen fi indi bërki démb bi 17 heures jotee ànd ak seen médecin ñu dalal leen ñu ngi ci biir service bi donc démb commencé nañu liggéey bi ñoom seen biir. ñu mm. jëm également ci wàllu dermatologie bi ñoom amoon nañ fi déjà benn tànk donc ñoom ñu ngi continuer liggéey bi. ci biir loolu waxtaan nañu ak service maladie infectieuse xool nu ñuy séddalee yenn xeetu maladie surtout ñi nga xam ne également euh, dañoo nekk personne vivant avec le VIH. Mhm. ñooñu aussi seeni dossier egsi na ñi ñu fi war a gérer ak service maladie infectieuse li nga xam ne professeur Louis Fortes moo ko jiite discuter nañu ak professeur Suzanne ba xam naka la ñuy gérer malade yooyu. seen i dossier également yegg si na donc foofu également y a pas de amul problème euh, parasito ñëw nañu tey tey la door a egg donc euh, installé guñu seen i équipement ophtalmologie seen matériel ñëw na quand même installé guñ ko parce que am na benn pàcc boo xam ne war na dem hôpital Grand Yoff li jëm ci chirurgie générale ak orthopédie ñoom it ñu ngi xaar ñu ñëw indi seen i bagage ñu mën leen installé mais fi ñu leen war a dalal defar nañ ko ba pare ñaari salle yoo xam ne mën nañ faa opérer euh, maintenant li jëm ci euh, yeneen xeetu maladie comme chimiothérapie mm-hmm. tout ça gis nañ ne mm-hmm. que service yi tey malade yi leen xëy wut si bëri na lool mm-hmm. euh, malade yooyu nag ñu fàttali rek ni que yu bëri yu doon dem Dantec ci banlieue bi lañ daan jóge mm-hmm. tey jii nii am na ñoo xam ne ñu ngi doon faju ci service yi nga xam ne bokkul ak yi hôpital bi war a dalloo ñu yóbbu leen ci yeneeni gox mais ñoom nee nañu fi leen gënal ak fi leen gën a jege mooy hôpital Dalal Jàmm donc il préfère carrément ñëwaat fii mm-hmm. donc ñooñu euh, bokk na également tey ci ñi nga xam ne yokk na ci consultation bi li jëm ci wàllu cancérologie mm-hmm. li jëm également ci wàllu urologie mm-hmm. li jëm ci wàllu chirurgie générale ñooñu tamit bëri na tey ñu ñëw jël si fi rendez-vous mm-hmm. donc ñun li ñuy def mooy ku fi jël si rendez-vous dinañ la jël dinañ la jox rendez-vous xool bu fekkee ne malade bu bees nga amul problème ñu ubbi la dossier mais bu fekkee ne malaat boo xam ne ñu ngi la doon suivre hôpital Dantec la dinañ la ubbil dossier mais laaj dossier say dossier ñu transféré ko fii bu ko defee euh, prise en charge bi gën a yomb mm-hmm. te comme ni ngeen déggee sama naataango directeur hôpital Dantec bi wax na leen euh, Babacar Thiandoum wax na leen carrément que ñoom ñu ngi liggéey ci affaire dossier yi mm-hmm. ut nañu ay archivistes et truc tout ça ñu ngi ranger dossier yi yëpp pour fexe ba bépp malaat bu soxla dossier wala hôpital bu soxla dossier malade aussi ñu xool naka lay def ba jot si pour que prise en charge bi gën a gaaw. Mhm. maintenant dama dama gis euh, euh, service yi nga lim nekkul ay service yu ndaw en plus am na nombre bi c'est c'est c'est très élevé est-ce que Dalal Jàmm pare na pour accueillir ce nombre de services yu ni mel yëpp ba fa jël na disposition pour à ce que ñu mettre personnel bi ñëw à l'aise en même temps surtout aussi malade yi ñu mettre leen à l'aise. waaw soo déggee ci sama biir wax. nee naa à part service oncologie pédiatrique bu déplacé wu en bloc ñeneen ñi ay pàcc la une partie mooy ñëw te partie boobu ñëw ñun pare nañu pour dalal leen boo jëlee tey ji lu jëm ci orthopédie par exemple suñu activité orthopédie bi eh, service boo xam ne vingt 28 lii la woon vingt 28 lii yooyu yëpp pratiquement comme démarré wuñu woon tey jii nii mun nañ mën nañ ko bàyyi ak euh, service boobu. Mm-hmm. lu jëm ci wàllu urologie également. Euh, lu jëm ci wàllu chirurgie générale également am na ay lal yoo xam ne yeneen service ñoo ko occupé woon mais service yooyu daanaka bi mbas mi amee mbas mi moo leen occupé mais réhabilité nañ ko ba service yooyu war nañu dellu fa ñu ne woon donc dañuy bàyyi de l'espace mm. maintenant parasito yi jëm ci laboratoire yi ak yooyu soxlul ay hospitalisation espace la bu ñu teg euh, seeni équipement mm. pour ñu mën liggéey donc affaire u place xam nga léeg-léeg kër ni ñu naan kër yi dafa xat kër yi dafa xat mhm. kër yi xatul souvent xol yay xat ma jàpp ne nag jamono jamono non amul ci hôpital mais dama jàpp ne rek maanaam problème li ñu naan hôpitalu Sénégal amuñu espace bay accueillir ñeneen ñi fi nekk sax mënuñu leen yor bay ak donc loolu waaw loolu waxin la rek mhm. mais am na benn intelligence organisationnelle boo xam ne ñiy liggéey ci hôpitaux yi xarañ nañu xarañ boo xam ne lu ñëw yokk ci ñoom ñu dalloo ko mm-hmm. problème d'organisation kese la mm-hmm. donc euh, euh, hôpital bi jël na ay dispositions pour que ñooñu bu ñu ñëwee ñu mën leen xajal parce que hôpitalu lëmm kenn mënu ko yóbbu ci beneen hôpital mm-hmm. mais bu fekkee ne dañoo séddoo li nga xam ne moom lañ doon def amaana dina oyof ci ku ne mhm. te dinañ leen xajal te may wax ni rek ñun bi ñuy waxtaanee bi li yëpp amee anticiper nañu ci mhm. suñu biir waxtaan ak suñuy chef de service mhm. ba nee nag ni ñu ñoo war a yaatu ah, ku nekk danga nga war a généreux ca ci sa espace xajal ci sa moroom parce que li am solo li am solo ba am solo mooy malaat bi nga xam ne moom moo feebar soxla ku ko faj kooku nag jarul xiiyoo xiiroo jarul ŋaayoo euh, danga bëgg faj keneen ki bëgg faju mais problème waru faa am mm-hmm. li ñuy wax rek kuy wut fay fanaan ak kuy wut ku la wettali ubbal bunt bi mm-hmm. waru leen boole. voilà man si si malade yi lay rebondir un peu. Mm-hmm. Euh, Dantec am na ay dañ doon jël ay cas sociaux. est-ce que ñoom aussi bokk nañ ci yéen ñi ngeen war a recevoir parce que la majeure partie comme ni nga koy waxee ci banlieue bi lañ daan jóge di dem fee est-ce que dossier yooyu jëm ci wàllu social bi yéen euh, am na am ngeen lu ngeen ci téye. waaw ah, mais may fàttali que ni hôpital Dalal Jàmm c'est un hôpital public toutes les politiques publiques yi nga xam ne ñu ngi koy appliquer ci hôpitaux yi hôpital Dalal Jàmm da nga koy appliquer. boo wàccee léegi di nga gis service social boo xam ne même bu dul woon Dantec sax mm-hmm. mu ngi jël ay malade yoo xam ne ñu ngi leen di jël en charge bu defee enquête sociale am nag ba gis ne kii malade euh, cas sociale soit mm. dañ ko war a jël en charge totalement wala à cinquante pour cent wala à vingt cinq pour cent c'est selon son niveau d'indigence bon service social bi day def ay proposition indi ñu ko ñu signé ko et puis ñu jël malade mu continuer traitement mu continuer traitement am mm-hmm. donc en réalité euh, affaire pay mi mm-hmm. warul nekk barrière il suffit juste que ñun ñu xam exactement pour que ñu mën a ajuster wu pour permettre malade boobu mu mën a mën a faju donc loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom moo am solo euh, ne pas mu am une rupture de prise en charge par rapport ak maladie mais bien entendu nag balaa nga naan kii cas social la wala kee cas social la nga saytu ko ba xam. xool dossier que sinon mm-hmm. bu ñuy xool ñëpp ay cas sociaux lañ. mën wax mm-hmm, mm-hmm. parce que tey jii nii li ñuy gis mooy gis nañ fi ay malade yoo xam ne dañuy bu ñu ñëwee hôpital dañuy deedeel du ñu am du ñu nangu am dara. mais bu ñu faatoo li ñuy fekk ci seen poche yi wala leneen dafay bëri wala boog bu ñu génnee ñu gis leen ci yenn situation yi da ngay naan ah kii kat ndekete moom li mu ñu doon xam mais hôpitaux yi il faut nit ñi xam ne également mu mu dox jàppal ma jàpp da cee ne. mu noo bëgg confort bëgg lu set bëgg gis médecin. Mm-hmm. bëggu ñu jox la médicament bëgg lépp aussi te nanguwoo génnee dara sa te boo demee ci clinique wala leneen tu es prêt à payer tout. Mm-hmm. ñun hôpitaux yi. Mm-hmm. ñun ñooy def effort fexe ba malade bi amaan na ñu bëri sax du question bañ a bañ a bañ bëgg fay mais. ñoo war a def effort pour que bu ñu ñëwee fekk fi ñu nekk mu set fekk jox leen lekk bu baax ñu gis médecin expliquer leen également seen feebar defe naa loolu su amee ñoom it dinañu gën a sawar ci ci ci ci ci fay. mais mais dalal jàmm loolu nga dugg sax sa euh, population bi nga xam ne ñoo dëkk ci banlieue bi nañ daral jàmm accessible de nee nañ confort yi moom mi ngi fi mais euh, pour accéder ci soins yi c'est un peu difficile parce que dafa cher. donc xam nga cherté bi il faut relativiser xam nga defoo étude pour wax ne pourcentage bii la mais ñun ñu ngi gis ne que malgré li ñuy wax yooyu yëpp mm. taux de fréquentation bi day yokk taux de fréquentation bi day yokk mu ngi yokk mais ñu ngi jël cas sociaux yi ça veut dire quoi ça veut dire que les gens ils sont prompts à si les conditions mm-hmm. de prise en charge sont réunies mm-hmm. maintenant ñun li ñu war a def mooy fexe ba condition de prise en charge yëpp réunir mooy li may wax léegi tëdd ci lal bu baax mm-hmm. am darab bu baax am environnement bu set mm-hmm. gis médecin jël médicament yi jox la mm-hmm. te nit ñi dañuy umpale également lenn le plus souvent boo fi ñëwee fii bu ñu la waree opérer dañ lay defal une facture globale doo fi nekk di génn souvent di jënd ay garab du ci ñàkk nag du ci ñàkk mais loolu yëpp day nekk ci ci ci ci kit bi donc encore une fois nañu relativiser Euh, cherté bi parce que dalal jàmm dafa appliquer ay tarif mhm. tarif yi encore une fois c'est un arrêté interministériel moo koy fixé il y a des tarifs planchers et des tarifs plafonds arrêté interministériel boobu ma wax leen que de 2005 la 2005 2022 ñaata at la pourtant lépp yokk pourtant lépp yokk mhm. mais taxul gars yi ñu ngi leen di tënk hôpitaux yi laa wax de en général waxuma dalal jàmm rek ñu ngi leen di tënk ci ci tarif yooyu te booy xool aussi personnel bi ñu ngi am yeneen avantage yoo xam ne hôpitaux yi buñ koy fay <laughs> ci li seen koom-koom rek lañ koy mën a fay te taxul donc hôpitaux yi aussi yokkaat un peu les tarifs donc vous voyez mm-hmm. donc euh, ñu ngi wax hôpitaux yi mais xamuñu ni hôpitaux yi du dundee. Mhm. xamuñu ni hôpitaux yi di marché c'est normal nag. Mhm. nit ki li nga xam ak li nga sentir ngay wax. mais ñu wax leen ni daal tarif c'est encadré. voilà mhm. en tout cas. politique publique la c' est un hôpital public. Mhm. c' est un hôpital également accessible. donc maintenant soo bëggee qualité. Mhm. tu mets le prix. Mhm. donc pour pour juste terminer la dernière question ci tënk mun nañ jàpp ne concernant problème bi Dantec am ba ñu déployer yenn service fii à Dalal Jàmm yow en tant que directeur mun nga rassurer la population rawatina les malaat yi nga xam ne seen dossier war na fi nekk bu ñu fi ñëwee lépp lu ñu soxla comme soin comme attention dinañ am te dinañ fekk service bi commencé démarrer seen liggéey. c'est-à-dire ñun suñu credo dalal jàmm avant Dantec di ub ñaari yëf la ñu mettre au devant c'est l'accueil des malades et la question de l'hygiène fii agent boo ko fi laaj dina la wax ne directeur moom ñaar moom mooy ay mbiram donc loolu noonu day continuer di wéy day continuer di wéy jël nañu suñu motuwaay pour que malade toujours bu ñu ñëwee ak personnel bi sax bu ñu ñëw ñu tënku ci li nga xam ne moom moo fi ne ñu continuer doxal maladie bu ñu ñëwee aussi gis nga boo duggee am na au moins ñi ngay mën a waxal mm-hmm. ñooñ ñooñ ngay waxal dinañ la orienter dinañ la accueillir dinañ la accompagner mm-hmm. dinañ la informer mm-hmm. donc loolu je pense que am na fi maintenant ku ñëw ak sa feebar si selon le cas ñu yóbbu la fañ la war a yóbbu boo amee loo fayee normalement nga fay boo amul loo fay nag ah di nga jaar service social ah boo bañee xaawi sa sutura tamit dinga waxtaan ak ñoom c'est mm. vrai que ñoom tamit dina am na fu ñu mën a yem mm-hmm. dañ la ne ah lii kat mën nañ la ko wàññil mais lii nag mënta nekk dafa mooy li nga xam ne mënta ñàkk mm-hmm. li mënta ñàkk noonu nag ah ñu xool nooy def pour fay ko moo tax mm-hmm. nit ñi nañu dem adhéré ji ci mutuelle de santé yi moo moo tax nit ñi nañu dem adhéré ji ci mutuelle de santé yi adhéré ji ci mécanisme yi nga xam ne day yombal seeni paj waaw je pense que souvent amee message bu may lancé lu mel noonu la parce que hôpitaux yi tamit mm. dafa am lu leen warloo ak ñi fi liggéey am li leen warloo ak seeni fournisseur am li leen warloo sax ak équipement yi nga xam ne ñoo fi nekk mm-hmm. parce que liggéey bi comme industrie la rek dafa am le capital équipement yi le facteur également travail facteur travail mooy nit ñi mm-hmm. nit ñi da nga leen di fay mais équipement yi ci seen bopp danga leen di entretenir ni nga leen di entretenir yi nag dangay ngay ay société da ngay fay lii da ngay fay lee da fay lii jënd lii protéger say équipement pour mun a protéger malade bi loolu yëpp état naam mu ngi joxe subvention mais leneen li ci des hôpital daf ko war a wuti mm-hmm. am na ay xeetu personnel yoo xam ne dañoo manqué par exemple mais yow directeur yi yow yaay dem uti jël nit ñooñu fay leen lu donc ñooñu doo leen wax ne non hôpitaux bi ay cas sociaux ñoo ciy faju si nangam nangam mënu ma la fay non boo leen fayul ñu dem seen yoon donc je pense que l'un dans l'autre ñun dañuy def ay pexe pour que maladie lu ñu soxla fekk ko fi ñuy ñaan rek ñi nga xam ne mën nañu fay ñu ñëw bu ko defee tamit ñu mën a jàppale ñi nga xam ne mënuñu lu ñu fayee parce que mécanisme de péréquation la rek mm-hmm. ñun on fait tout pour attirer la clientèle solvable mm-hmm. mais suñu attirer clientèle solvable bi ça nous donne de la marge pour prendre la clientèle non solvable mm-hmm. donc euh, noonu la demee voilà merci monsieur le directeur ñu lay jaajëfal ci disponibilité bi euh, maa leen di fay maa leen di fay di leen sant di mm-hmm. leen di leen gërëm euh, nii la rek affaire yi moom bu amee loo xam ne leeru leen rek mhm. ah ñun ñu ngi fi luñ ci mën a leeral teg ko ci dëgg tamit mhm. dinañ ko leeral mhm. et tamit dinañu permettre à partir de question yi ngeen ñuy posé ñu xam lan mooy mettitu askan bi wala lan la ñuy joytu pour ñu mën ko joyanti bu